ba joona dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Falilu yaaro ci mboolem law lu yow Falilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariixu alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaayi sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa di ab xalifa di alaaji moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji Fallu lay baax te di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko di ñaanal sëriñ Amdi Modou Mbenda suñu borom yàggal ko fi loolu te ko noonu la ñuy ñaanalee sëriñ Abul Baraka mi nga xamante ne mooy fii moo Mouhamadou Fadal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko di ñaanal sëriñ Abdou Karim suñu borom yàggal ko fi lool te ko noonu la ñuy ñaanalee jàmbaaram jii di sëriñ Xaadim Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Xaadim Paquetas suñu borom yàggal ko lool te ko waaw jëmm ji di sëñ xaadim de jëmm joo xam ne jenn yitte rek la am te yitte jooju mooy liggéey suñ Tuubaa daa jagleel dundam gépp sàkku ak taalibe ak di liggéey suñ Tuubaa moom daanaka loolu rek daa doy ci ci ci lu ñu mën ci ci jëmmam mooy lenn rek lay xencu muy liggéey suñ Tuubaa loolee muy xencu nag moom lay xenculoo mboolem mbooloo mi nga xamante ne ñoo aju ci moom jamono ju nekk jënn yitte la leen yi jubluloo jënn jubluwaay la leen yi xolloo muy doon ay taalibe yoo xamante ni seen lépp dañ koy jagleel liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw moom daal xam naa ni mangoog rek loolu moom mooy mooy yoon bi rek muy jaamu yàlla ndax mbooleem liñ fi liñ ci liñ ci liñ ci jublu rek lenn rek la muy doon ñoo xamante ni daa am loo xam leen suñu borom digal la ñu koy sàmm te yàlla moo ñu ñu jaamu ko bis bii nag bisu sant la rek ndax sëñ Fallou moom daa doon koo xamante ni yoon bi yëpp daa daa liggéeyal yàlla loo xamante ni liggéey bu rëy la kon bisub Kazu Rajab bis la boo xamante ni genn jubluwaay lañ ci am rek muy muy muy muy muy gën gën cee santaat sëñ Fallou di ci santaat suñ Tuubaa mi nga xamante ni moo waral lépp ci ci tàmbale bi ci suba jàng nañ fi ay kaame alxuraan ginnaaw gi it boobu ba léegi yéen a ngi dégg xasida yi ay bernde it jaar na fi ngir mbooloo fuñ daje war na ñu am lu ñu def ci seeni biir amit lu ñu def ci seeni i ruux muy alxuraan beeg xasida yi ak bernde yi waaw loolee nag daanaka mooy programme bi rek bis la boo xamante ne daal bis bu ñuy sant sëñ Fallou rek ñuy ñaanal nag suñu Xaadim mi jiite liggéey bii suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool. te ñaanal sëñ Abdou Karim suñu borom yàggal ko fi mbooloo mi nga xamante ni ñoo ànd ak moom di liggéeyal suñ Tuubaa suñu borom dëgëral leen kàttanal leen ba dara du dox seen diggante ak suñ Tuubaa ndax fu sëriñ bi geesoo rek mi ngi leen di gis ci wetam ñu doon ay murit yu am pasif paquetage nag di diwaan boo xamante ni paquetage jàlla jàlla gi mooy jaamu yàlla ak liggéey suñ Tuubaa moo xamante ni leen rek la ñuy sàkku muy ak taalibe ak taalibe rek la ñuy sàkku te ñoo ngi ñaan euh, suñu borom defal defal defal nu ko te yàggal fi sëriñ bi bu baax a baax ba mbooleem naal yi mu bëgg a naal suñ Tuubaa rek mu naalal ko ko te àggal ak jàmm barke Cheikhul Khadim